commission bi ñuy oowee transitoire nga xam ne jëriñ bi ñu dénk wàllu biti réew moo ko yore woon li mu waroon def mooy xool processus électoral bi ana naka lañ koy def ginnaaw ñaari fan ci weeru avril ba ñu jeexalee seen liggéey nag lañu ñu mooy ñu may ki nga xam ne mooy njiitu réew mi Macky sàll mu daal di fiy toogandi ci bopp nguur gi ginnaaw bu mandaawam jeexee xaar ñu amal élection ngir moytu dëkk bi bañ a am njiit. état dafa war njiit la article 31 dafa ni bu yooyu amee ba vacance bi national wax ni am na mën nañu may ki fi nekk ñaari weer gën gaa néew ñetti weer gën gaa bari moo organiser élection parce que il faut mu joxe lenge yi beneen proposition nga xam ne euh, commission bi waxoon nañu ko mooy dal di saisir conseil constitutionnel ko defee mu dal di tànn waaye su boobaa kenn dootu ci mën a dellu ginnaaw waaye boobule proposition ñëpp ànduñu ci. ñu jàpp ne kon ci loo xam ne lu mu soppi fi président pour soppiwaat président bu bees boo xam ne dañ ko fal jàpp nañ ne xaju fi ngay indi président boo xam ne kenn falu ko dañ koy désigner mu ñëw ci xëy na du am expérience bi président bi fi nekk te mandaam jeex di am nga xam ne daf ñu fukki at moo tax nag ñu ne dañuy ragal jël risque indi fi koo xam ne daf ñu yokk pëcc pëccëxoo bépp proposition bu génnee ci dialogue bi dañu koy dal di jébbal njiitum réew mi Macky saal moom it mu dal di fexe mu daal di jël décret présidentiel ngir convoquer corps électoral bi moom nag dal di nay moom nag diggée na ne dina saisir conseil constitutionnel bi ngir ñu ma ngir ñu valider boobu les décisions sept sages yi ñoom itam dinañu càmbar proposition yi nga xam ne moo ñeel ubbiwaat list euh, candidature yi ak dal di wéyal njiitum réew mi euh, ci boppu nguur gi laata fi yekk ñuy amal élection ba tànn ki koy wuutu